la déclaration de patrimoine dafa obligatoire mm-hmm. loolu mu bokk jéego yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu euh, patrimoine xëy na boo nee nga état des lieux dina am est-ce que yow tey boo doon def sa état des lieux euh, lan ngay wax sénégalais yi euh, gannaaw coow li nga xam ne ñu ngi koy yëkkati autour de votre patrimoine autour de vos richesses xam nga am na ci yoo xam ni nit man maa ngi sant yàlla d'abord bi ma duggee ci administration fiscale kon suñu fa duggee ñun ñëpp ñoo ko bokk duggandoo c'est un concours que tu fais Dieu a fait samay kilifa ràññewoon nañ ma ci liggéey bi et que boo am nañu ba tey ji xëy na sax yenn changement yi maa ko fa indi à l'époque euh, danañ la fay ba mu yegg ci ay montant yu am solo jàpp naa ni ci sama carrière li may sante sunu borom mooy inspecteur yi ma ëppale li ñu fayeeku ci seen carrière bu amee it bariwul yaa ngi may bu baax te loolu lu ñu mën a vérifier la biir impôt euh, xam nga impôt am nañu système de fonds commun part de pénalité à l'époque part de d'amende xëy na léegi changé na parce que li ci ëpp bi ma nekkee directeur général lañ ko changé ba gën a équilibré mais sinon at yi ko jiitu di nga gis kii am benn keneen ki am fukk noonu la bindoo woon xam naan daal ñi ma daan fay am na ci kenn ko xam ni sama benn grand bu baax la woon Diagne Kébé wala Ndongo Sène moo ko remplacé wala Mbaye Ndaw Abes Diop Mamadou Mbengue ñooñu ñëpp daal ñu ngi ñu ngi fi nan daal ba ma fa nekkee moom maa ngi doon sant suñu borom bu baax a baax a baax ci li nga xam ni euh, daan nañ ma ko fay en toute légalité maintenant ni ma yàlla bindee moom mooy man lu ma am bokk ak nit ñi ça ça pose un problème parce souvent nit ñi dañuy jàpp ni euh, soit da nga bëri yërmande wala ñu jàpp ni da nga yor lu jeex loolu loolu am na bi ma jógee impôt aussi ministère des finance laa jëm te ministre des finances nag dëgg neex yàlla dina am nag looy am ministre des finances te nekk naa ko juróom benni at. salaire ministre des finances ñaata la. salaire yeeg émoluments yeeg indemnité yeeg. ça peut atteindre des sommes importantes. mais surtout comme, que moi j'ai été. Comme, comme président du conseil des ministres de l'UEMOA aussi hein, sur deux ans donc euh, 2017 2018 ou ou fin 2016 2017. j'ai été président du conseil des ministres de l'UEMOA euh, les sommes euh, euh, mën nga am en termes de rémunération lu am solo